بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي
بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر sunu boroom mi ngi giñ ci waxtu fajar wa layaalin ashr di giñ ca fukki guddi ya wa shafii wal watr di giñ ci lépp loo xam ne dafa nekk ñaar ak lépp loo xam ne daa tool nekk benn wa layli iza yasr di giñ ci guddi jamono ba muy dem hal fi zalika qasamun li zi xijr ndax nekk na ci lii aw waatin ñeel koo xam ne am na xel mu mat alam tara kayfa faala rabbuka bi aad ama ndax gisoo ne yàlla jëflente jëfle jëm jëf jëme ca waa aad irama zaatil imaad mu nekkoon dëkk boobee nga xam ne mooy boroom kennu ya donte ne am na ñu na iram mooy seen maam ja zaatul imaad ñoo xam ne nii ñooy borom kattan ya allati lam yuxlaq misluha fi lbilad ñoo xam ne kenn musul bind lu mel noonu ci dëkk yi mboole seen wa samud allazina jaabu soxra bilwaad ak waa samud ya nga xam ne ñoom ñu doon yett xeer ya ca biir xur ya wa firawna zil awtaad ak firawna ma nga xam xam ne mooy boroom awtaad ya nga xam ni mooy daaj yu mag ya donte ne arab dana koy wax ay montagne mi nga noonu jibaala awtaada borom bi subhanahu wa taala mu ni allazina taxaw fi lbilad ñooñu nga xam ne ñoo beewoon ci dëkk yi fa aktharu fiha alfasad ñu baril fa lool ak yàq fa sobba alayhim rabbuka sawta azab mu sotti ci ñoom sa boroom lii di yaru mbugal inna rabbaka la bilmirsad sa borom yàlla day ma nga ca place ëkkuwaay ba fa amma al insaanu ida mabtalaahu rabbu waaye doomu aadama bu ko boromam nattoo fa akramahu mu daal di koy teral wa naamahu sotti ci moom ay xéewal fa yaqulu rabbi akraman mu ne ah man de sama borom daf maa teral wa amma ida mabtalaahu waaye bu di am foofu la ñu moon naam non non jël nañ ko naam wa amma ida mabtalaahu bu dee ne nag suñu borom yàlla da koo nattu fa qadara alayhi rizqa mu daal di xatal jëm ci moom la nga xam ne mooy wërsëgam fa yaqulu rabbi ahanan mu ne ah man kay sama borom damaa toroxal mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax fii di giñ ci temps gis nañu sànq saar bi ñu génnee mi ngi ñuy giñal ci espace ci lañu mën a gis asamaan montagne yi suuf yi ak yu deme noonu tey muy giñ ci temps muy giñ ci fajar di waxtu woo xam ne guddi gaa ngi lëndam këriis ñu togg mujj rek suñu borom commencé génne ak leer ci penk bi fajar boobee mooy xamal julit ne yow lekk ak naan jeex na bu dee ne weeru koor la mooy xamal julit ñi ne julli fajar jot na loole moo tax ba julit di bàyyi xel éléments yi am ci nature bi yépp ndax dafa lënkoo ak moom 24 sur 24 fajar googee suñu borom di ko varié léeg-léeg da ngay gis bu dee ne dañuy julli 6 heures mooy léegi la ñu dem ba julli 7 heures mooy bu doon dëkk yi yenn yi occident ak yu den deme noonu léeg-léeg fajar gi lekk ci bëccëg bi 4 heures de temps léeg-léeg mu wàññi ko ci 6 heures de temps mi ngi noonu fajar ngi noonu mbokk julit doonte ne ni bokk na musiba bu rëy buy dal julit mu nelaw ba fajar paase jógul julli yonente bi alei salaam nee ne képp ku nelaw ba fajar paase cheytaane moo saw ci ay noppam loolee buy am dafa war a am ci ci accidentellement mi ngi noonu yow doomu julit nga day accidentellement la war a doon ngay nelaw ba biddanti fajar bañ koo def aada mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala daa di giñ ci fukki guddi yi fukki guddi yooyee li ëpp ci mufassiruuna yi dañ koy delloo ci fukki guddi yi dëppoo ak bëccëgi tabaski suñu borom mu ne wal fajri wa laylil ashr yonent bi alayhi salaam nee na fukki fan yi gën ci at bi yépp mooy fukki fan yu ubbi tabaski donte ne ne fukki fukki fan yooyu lañ ci jublu mooy bëccëg ya te bëccëg dafay lënkaloo ak guddi moo tax xatta wala fi da koy wax eh tolloo naa guddi yoo xam ne loolu mi ngi ci jublu rek temps boo xam ne bu yóbbaale bëccëg ba loolu mooy la gën a not donte na am na ñu koy firee layalin ashr mooy fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor donte ne ne lay dëppoo mooy fukki fan yi jëkk ci weeru tabaski mooy bëccëg yi gën ci at mi fukki fan yi mujj ci weeru koor mooy guddi yi gën ci at mi mi ngi noonu suñu borom waat ci chef awul witr chef al witr awalan mooy lépp loo xam chef ola suñu borom mu ne min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu mu mën a doon paire la yow doomu aadama góor jigéen lu mu mën a doon am amma suñu borom moom rek mooy kenn ki amul ko ko ñaareel mi nga noonu al ahad allahuma lu dul ne li nga xam ne mooy chef ak witr it bokk na loo xam ne ni fuqaha yi tudd nañ ko te mooy nit ki war nga tàmm gannaaw gee ba ba fajar da jot nga def fi chafa ak witr chef o boobu muy paire mi ngi commencé ci deux la yem deux witr boobu di benn loolu tax sunu maam yi daan tàggat ni ñu def boo julee def chafa ak witr julli ñaari rakka te ci benn rakka mbokk nañu xam loolu c'est le minimum waaye ngallaawaay bul yem ci loolu soo ko defoon quatre rakka moo gën six moo gën huit moo gën dix rakka mooy gën avant ngay def sa witre waaye mi ngi noonu witre mooy naafili bi gën a màgg gannaaw julli farata yi naafili bi gën a màgg muy witre witre boobu nga xam ne benn rakka la bokk na luy sunnaam mooy ñu jiital ko ci ñaari rakka au minimum waaye yonent bi alayhi salaam moom lu ci bëri doxalinam da ko daan jiital fukki rakka fukki rakka daana julli juróom-ñetti rakka yu gudd gannaaw ba jël ñaari rakka sabbi isma rabbikal ala qul yaa kafirun dooga cee teg la nga xam ne mooy witr boobe suñu borom it giñ ci la nga xamee ne ni moom mooy guddi jamono bi muy dem ca mbokk mi ngi noonu it guddi gi suñu borom da ko fii bàyyi mu dem ba mujj yàlla yóbbu ko indi fajar loolu it di la jàngal yow doomu aadama suñu borom boobu moom temps moom it moom moom dogal yi mooy yow mi nekk ci coono ki jafe-jafe jàppal ne yaa ngi ci guddi rek waaye guddi lu mu yàgg yàgg fajar dana ma sa xar bul découragé del ñaan di toroxlu ci yàlla bis dana ma sa ñëw borom bi nag ne waaw ndax ñi nga xam ne borom xel yi lañu mbokk xel mooy xijr arab da koy tuddee xijr mooy barrage da koy tuddee aql aql mooy lu ñuy takkee te doomu aadama bi xelam da ko war a yóbbu ba bànneexu bakkanam du ko jiital xelam di ko baari lépp loo xam ne bànneex baa ngi la cay yóbbu ca jukko ju rafet nanguwu ko sa borom nanguwu ko sa xel moo lay baare ba doo ko def yu bari it ci ay wax xel moo lay baare ba doo ko wax lu bari ci jëf xel moo koy baare doo ko jëf bokk na dof mooy koo xam ne loola neex wax loo gis wax loola neex wax laa wallahi amma borom xel yi mooy ñooñu mooy képp koo xam ne sam xel yóbbuwu la nga xam ne yàlla kenn la jaamu ko ci àdduna day jeex alaxira mooy mooy sax nekkal savant nekkal expert nekkal lu ñu mën a tudde ci médecin lu mën a doon ca dof ya nga bokk te dof ya nga bokk xel mbokk xel balaa jëriñ dalay xamal ne fii nga war a jaar ca sa waxi borom muy dëgg borom bi nag di wax ñu fi jaaroon nekkoon ci seen digg ndënd mbëru ci kaw suuf fan la yàlla jaar ak ñoom ñi ci jiitu muy waa aat waa aat yàlla mayoon na leen ñu nekk ñi gën a rëy ci ñi yàlla bind fa dañ doon wax man ashad minna quwwa yàlla musul bind ñu rëy na ñoom ñu nekkoon mbëru di dagaali nit ñi nangu seen alal nekk di tabax fu leen neex di ko lëri in aaya di wane seen kattan ci àdduna suñu borom yàlla nan la mujjee ak ñoom ngelaw la leen yónnee ngelaw la ñëw buddi leen yóbbu ba ci kaw rajaxe seen bopp yi ñoom ñëpp comme na ko yàlla nettalee ci xaq nettali ko ci yeneen saar ñu jóge fi waa samud ñëw suñu borom may leen ak xereñe xereñe goo xam ne dañ daan dem ci montagne yi di ci yett ay château di ci dëkk yàlla may leen lu nekk ci ay tool yoo xam ne nii naxlin tal o hahdim dara manqué wu leen ñoom it ñu bew ci kaw suuf ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala lan la mujjee ak ñoom yónni leen ak yoox gannaaw ba mu leen ne yónni yónent ci yàlla samud yónent ci yàlla salih mu indi leen kaw ci fi gileem gaag yépp foofu leen yàlla mujj ak ñoom bu dee firawn firawna suñu borom mu ne zil awtaar mooy defal ne ay pyramide pyramide yooyu nga xam ne mu ngi nekk Égypte waa UNESCO classé ko ci les sept merveilles du monde boo ko dànnee day mel ay montagne di kattan goo xam ne ni yàlla mayoon na ko ko ak commandement bu mu amoon ci peuple am rawatina bani Israël fa ñu tabaxal ko yooyu ñu ko tabaxal yépp loolee da ngay gis am na ñuy tuddee it awtaad yi mooy ñoom daan daaj ñu ngi noonu ci piquet yi di leen mbugal te loolu ci la reyee soxnaam sa ba mu gëmee yonent yàlla Muusa borom boobu nee na ñii ñooy ñi bewoon ci kaw suuf bari fi dool ak yàq suñu borom dóor leen caw yaru mbugal yàlla mi leen alagoon mi ngi fi ba tey inna rabbaka la bil mirsad yàlla mi ngi fi ba tey moo tax it même booy xool histoire récente bii ñuy dund nga xool rek ci 40 ans ci gannaaw ay bari woon na ay mbuur yoo xam ne mbëru woon seen kaw xeet lu leen neex def ci peuple bi jàpp ne ngóor gu di jeex mukk ñu ci bari seen borom da leen toroxal mi ngi noonu avant sax ñuy dee borom boobu kon mu ne mi ngi bil mirsad te yow doomu aadama xamal ne yàlla nee na mi ngi ci ëkkuwaay bi foo jaar daje ak moom fexeel ba def lu ko neex am déet yàlla kenn du ko rëcc foo jaar daje ak moom inna rabbaka la bil mirsad borom boobu nag mu ne bu dee doomu aadama yi su dee yàlla da leen a nattu yàlla teral leen na doon ñu bokk ci famille yu kawe teral leen jox leen nguur teral leen jox leen ay daraja sotti ci ñoom ay xéewalam may leen wir may leen alal may leen ay doom may leen lépp lu ñu soxla day daal di bakku puukaru ah man yàlla daf ma teral na du ma seen morom gis ngeen jàpp na loolee lu mu yeyoo la et que bëgg gu ko yàlla bëgg moo tax mu def ko mu def ko loolu bu dee ne nag doomu aadama beneen bi moom bu ko yàlla nattoo daa di koy jël gàttal wërsëgam ñu bari ci ñoom ñu xamul xikma yàlla dañuy daal di bàyyeeku ne man yàlla daf ma toroxal mi ngi noonu suñu borom yàlla nag di jajji doomu aadama yi di xamal ne demul noonu awalan xamal ne mbokk alal nattu la bu la yàlla nattu di xool ndax da nga ko sant am da ngay bew am déet yàlla lim joxoon Suleymaan mosu koo jox keneen kuy ñëw gannaawam abadan lan la ko lan la suleyman doon wax hadha min fadli rabbi li yabluwani a ashkur am akfur lii day xéewal la mu yàlla defal di xool ndax damay sant wala damay bew mi ngi noonu su ko defee yow mi nga xam ne julit nga alal ji da ngay xam ne nekk sa loxo ñu la ëpp xam-xam fuuf ëpp la doole fuuf jëkk laa judd fuuf di la jëkk xëy di la jëkk wàcc ñi ngi fi ci un centième ba amuñu ko kon lii xéewalagu la yàlla teg di la natt ba xam loo ciy def su ko defee alal joojee da nga ko war a delloo ca ngërëmal yàlla jalla wa ala amma lu bari ci doomu aadama yi alal da leen di beewloo ba nga xamee ni palaasu jaamu yàlla yi nga dem fa di fa fekk boroomi alal say baaraam nga leen di wàññi mi ngi noonu say baaraam nga leen di wàññi ñi ngi ci yeneen taluñu ko yeneen seeni doom nag waxi noppi alal fitna la juree la am na ci li gën a woyof mooy yàlla nattool ak ñàkk donte ne ak ñàkk am na ci ñoo xam ne yóbbu na leen ñoom it taluñu jaamu yàlla ñi ngi nekk kër kër guddi kër kër bëccëg taluñu jaamu yàlla mbokk kooku mooy ndóol lu tëppul yàlla loolu la mag ñi daan wax mooy perte nga ñaari yoon yow adduna adduna baaxul ba pare nga ña ñàkk àllaaxira yow kay bu adduna baaxul kay fexeel ba àllaaxira moom baax mi ngi noonu li gaa yi nett ñu ne naar bi daa gis lafañ bi kalang kalang kalang ba ci besture bi jënd benn bitéelu sàngari di naan mu ne ko yaa adduna yàqu na bul yàq àllaaxira yaa ngi dégg waaye ngi dégg waaye loolu mooy mbir bi su ko defee kon mbokk loolu ay nattu la am nattu la ñàkk nattu la bu mu yàlla di nattu ab jaamam ba xam naka lay doxe kim nattoo am tey ëllëg bu ko neexee ñàkkal ko kim nattoo ñàkk tey ëllëg bu ko neexee xéewal ko mi ngi noonu kon Cheikh Ousmane
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي جزاكم الله خيرا سني بروم كون موني كلا ديديت bal la tukrimuuna alyatim yéen day du ngeen teral jirim wala taxaadduuna ala taami almiskin te du ngeen ñaaxante ci leel la nga xam ne mooy miskin wa taakuluuna turaasa aklan lamma ca da ngeen di lekk ak ndono lekk goo xam ne nii lekk gu ñu boole la wa tuxibbuuna almaala xubban jamma te da ngeen a bëgg alal bëggeel goo xam ne nii amul fu mu yem ci léppam la kalla du noonu de ida dukkatil ardu dakkan dakka bis bu ñu mokkalee suuf mokkal ak mokkal wa jaa rabbuk wal malaku saffan saffa sa borom yàlla ñëw fekk malaaka yi ña nga nekk sappe ci sappe wa ji a yowma idin bi jahannam keroog la ñuy indi lii di sawaras jahannam yawma idin yatazakkaru al insan keroog nag la doomu aadama di fàttaliku waaye wa anna lahu zikra ana naka la koy ñeel ak fàttali gu koy jëriñ yaqulu ya laytani qaddamtu li xayaati mu naan ee waay ak a neexoon ma jiitaloon sama dund dëgg-dëgg ca way alaxira fa yowma idin la yuazibu azabahu ahad ba keroogee day kenn du mbugal yàlla na muy mbugale kenn ku mën a doon wala yusiqu wasaaqahu ahad kenn du mën a yeew yeew ya yàlla yeew kenn ku mën a doon yaa ayatuha nafsul mutmainna ay yow borom bakkan bi nga xam ne da ngaa dafa dal irjii ila rabbiki radiyatan mardiya dellul jëm ci sa borom doon aji gërëm doon ku ñu gërëm fadxuli fi ibadi demal dugg ci samay jaam wadxuli jannati te nga dem dugg ci sama aljana ja mi nga noonu mbokk suñu boroom day wax ci alal ji muy joxe wala di ko xañe du foofee la ngëneel ba nekk waaye ngëneel mi ngi nekk ci nga jaamu yàlla jalla wa ala sant xéewalam te muñ la nga xam ne mooy ay nattoo ba nga xamee ne borom xam-xam yi dañuy wuute ki yàlla jox xéewal xéewali mu sant ci yàlla delloo ko fi neex yàlla ak ki yàlla teg ñàkk mu muñ muñ gu rafet kan moo ci gën la ca gën rek mooy ki gën a ragal yàlla mooy ko gën ku nekk lam nekkee ak jaamu yàlla la ku nekk lam nekkee ak jaamu yàlla la ñàkk lu metti la mais soo ko muñee ci yàlla tax loo dee jaamu yàlla la borom bi nag nii la ngeen war a def koy defu leen ko ca mooy déedéet yéen du ngeen teral jirim ca mbokk jirim mooy kan mooy ki koo xam ne bi bàyyam di dee majeuragul koo xam ne bi bàyyam di dee majeuragul lu ci bari da ngay gis ne dañ koy tënk ci ay quinze ans ak yu demee noonu mooy ku mel noonu borom bi mu ne du ngeen ko teral loolu it muy wane ni mbokk teral jirim ndekete ci tuyaaba yi gën a rëy la bokk yonent bi alayhi salaam wax na ci loo xam ne néew na ci jaamu yàlla gu mu ko wax mu ne ana wa kafilul yatim ka haatayni yowma alqiyama nee na ñaari baaraam yi ni ñu lënkaloo mag kii teral ab jirim nii la ñuy àndi biir aljanna loolee mbokk da ngay gis tuyaaba ju rëy la joo xam ni ku nekk ci ñun war a bàyyi xel ana naka la mën a def ba am teraanga bu muy jëme ci jirim la ca jiitu bokk na ca alal dañ koy jox mu koy dundee waaye respect ko di ko conseiller bàyyam nekkuti fii di ko jege di wax ak moom loolee mbokk da ngay gis ni dañ ko war a taxaw ci jirim bi ca wur ñu bàyyi it ne màgg nañu arrêté loolu suñu borom mu ni in alimtum minhum rushda jirim bi ñu yor alalam di ko toppatoo nañ bàyyi bay isa balahu nika wa anastu minhum rushda bu demee ba mu mën a demal boppam ba ñu gis ne am na autonomie lañ koy doog a bàyyi waaye waxuñu rek ne am na 15 ans lañ ko bàyyi waaye dañ ko war a taxawu suñ kemtaleel kàttan bàyyi xelit ni yonent yàlla muhammad ab jirim la woon mi ngi noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca yàlla boole kook ñoo xam ne ñoo ko teral ba jooyul bàyyi képp koo xam ne nii da ngay gis ne yaa ngi teral ab jirim it yaa ngi fàttaliku jaarin boobu nga xam ne fa la jaar mi ngi noonu ca ñaareel bi suñu borom mu ni du ngeen ñaaxante ci leel miskin te mbokk doomu aadama bi yàlla may la ewaay la la yàlla may jël ci di jox miskin yi ñu koy dundee tuyaaba munta passé loolu su dee ne sax amoo ka nga jàpp ne mën na ko ñaax ko mu koy def koo digal lu baax bu ko defee yéen a bokk tuyaaba ja loolu mi ngi noonu rawatina nag weeru koor bi weeru koor bi ñu nekk ngeen xam ne mbokk julit weeru def tuyaaba la weeru ñu bëri de yaakaar ay ndimbal la ñu ngi noonu bari na ay ndimbal yoo xam ne nii dañ ko daan jël di ko indi fii ñu koy togg bés bu nekk wax nañu leen ni gis nañ leneen lu ko gën a baax mooy ndimbal yooyu ñu jël ko di ko def ay bon di ko jox ay boromi kër ñu koy dugal ci seeni kër tuyaaba ju toll noonu mbokk julit weer wi jeexagul képp koo xam ne am nga lenn loo ci mën a def demande bi wallahi ba bisub tey bi laa la wax ba bisub tey bi nit ñi ñu ngi def ay demande lu ci waaye mën a am di ko def loolee ñu bàyyi ci xel bu baax defaloo lu lu sa bopp ñu jëkk ñi ñoo ñu gënoon ah yal nañuy seen doxalin de manière générale lay wax waaye ñun yal nañu yàlla boole ci ñëgën boo xoolee tey jii yonent bi alayhi salaam mi ngi wax waa qawmu ashari ca la abu musa ashari bokk mu ne yal na yàlla teral leen ñoom lu ñu daan def seen dëkk suñ demee ba jamono metti xiif am dañuy woote waa dëkk bi yépp lu waay am na indi lu waay bàyyi këram ci dund na indi ñépp lañu am ñu indi ci penc bi ñu xool ñaata borom kër a fa nekk séddale leen ko ñu yemoo ci gaa yi lii xam ngeen ne xéewal la de waaye loolu fa lillahi alhamd ñun suñu maam yi laajal ñoom bilal caam dëkk boo mën a dem sàq yi ngay jëkk gis am déet dañ daan dajale sàq yi lu ñu daan def mooy dëkk baa ngi nii sàq yëpp dañ koy dajale suñu bayee ku nekk la nga bay da ngay dugal say sàq dañ daan am ay mag ñoo xam ne ci dëkk bi lañ bokk buñ demee bu guddi ba ñëpp a tëdd ñuy dem bu ubbi sàq yi di xool suñ demee ubbi sàqum suñ caam fekk kat daanaka dara desut fa ñu dem ca sàqum suñ saar jël ca sottil suñ caam ba nga xamee ni nii dëkk bi moom insha allah daañ bokk di lekk daañ bokk di lekk ba yàlla ñëwee ko xéewalam ca en général it yàlla da leen daan jàppale ngir ñi ngi jàppalante irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama waaye daaw ñu seetaan mukk mukk mukk waa kër gee di añ ak reer waa kër gee duñu am lu ñu togg gis ngeen su ko defee borom bi loolu xéewal la guñu suñu nekkoon ci suñuy maam muy le partage loolu lañ gën a ñàkk tey rawatina yéen jeunesse bi galawaay bàyyi leen xel loolu jeunesse yi tey xamatuñu partage kii fayoo ko un million cinq cent mille foo ko fekk mi ngi jàmbat lu tax teg na boppam soxlay quinze millions par par par mois kooku nu nu nu muy nu muy avancé waaye sun mag ñi mbokk julit xattaa ñi jëkk a teew ndakaaru gi laajal bilan cam fan la daloon man mii laaj leen fu ma daloon mooy ñi fi jëkk a ñëw ay salaire yu néew la ñu amoon waaye teewul partagé nañ ko ak seeni mbokk fexe ba jàppale leen ci ba ñun ñëpp ñu ànd dem loolee ndaw ñi bàyyi leen ci xel bu baax alal ji la yàlla wërsëgal la nga ca moom dëgg-dëgg mooy la nga séddoog nit ñi am naa la nga lekk loolu yàq lekk la nga solo yàq sol waaye la nga séddoog nit ñi loolu nga am ci sa alal ndax loolu moo lay xaar àllaxira laa taxaaduuna ala taami miskin du ngeen ñaaxante ci leen la nga xam ne muy miskin borom boobu subhanahu wa taala itamit ne da ngeen ci boole di lekk ndono ndono lekkin boo xam ne nii lépp ngeen di boole ca mooy lu bari dañ koy gis mooy nit ki day taw ba ñëw féetewoo kër ga féetewoo oto ba ñi jël alal ji xale yu ndaw ñi ñoom ñàkk mi nga noonu am na waykat bu yàgg bu fii nekk jaaroon doon ko way mooy nga dee mag ñi ñëw séddoo sa alal xale yee ñoom di wër di jooy mi nga noonu di taxawalu loolee mbokk ëpp naa def bokk na ci bakkaar yi gën a garaaw mooy lekk alalu jërim mi nga noonu inna lazina yaakuluuna amwaala yatama zulma innama yaakuluuna fi butunihim naara wa si yaslawna saira képp ku lekk alal jirim xamal na sawara ma lay xaar même bu dul jirim na doon ña ngi ko siqal soxna suwaaji la ak ku mën a doon loolee ñu xam ne nit ki bu deeyee yàlla mooy natt doomu aadama yi séddaleel boppam alalam seen yoon nekku ci yàlla moom alal ji masalan tey ji benn jigéen ngi nii am na kër am na lépp waaye amul doom am na benn jëkkër mais bu dee suñu borom nee na genn wala alal ji nañ ko jox jëkkër ji lu ci bëri nag frère yeeg ñeneen dañuy kaas loolu mais loolu lu ci seen yoon di yàlla moo moom alalam yàlla ko séddale ko ko neex seen yoon newul ci loolu kon heure boo demee ba jël alali keneen boole koog sa ndono lekk borom bi mu ne yéen a ngi lekk turas ak lan lamma gannaaw ba alal de manière générale nit ñi dañ koo bëgg xubban jamma lan mooy xubban jamma mooy bëggeel goo xam ne lépp la ëmb amma yow julit sa bëgg alal daa am borno sa bëgg alal daa am borno ba nga xamee ni nii alal ju jóge ci carte bëggoo ko alal jóge ci sàngar bëggoo ko alal ju jóge ci ak njabar bëggoo ko loolee mi ngi noonu parce que da nga gis ci journal bi dañ koo triandé moom kat daa joxoon ay soppikatu xaalis cent mille cent millions ñu triandé ko lekk kooku dafa xamul diine rek waaye yow même bu la wóoree ne mën na ko doo ko def parce que da ngay xam ne lii ak njabar la baaxul doo ko def su ko defee kon xubban jamma moo mooy bëggeel goo xam ne nii amul luñ koy seet borom bi nu mën ak déedéet xamal ni bis dina ñëw suuf ak li ci nekk lépp yàlla mokkal ko ak mokkal e waay gars yi suuf bu mokkee rumbax ana katkat ya ana immeuble ya ana tool ya comme niñ ko fi waxoon bërki démb lépp luy xëccoo poussière lay mujj lan mooy def sa jëf sa diggante ak sa borom borom bi nee na bu keroogee sa borom dina ñëw atte ay jaamam ñëw nam ko neexee jàll wa ala dara melul ne moom malaaka yi jóge wàcc kaw asamaan wër doomu aadama yi chaîne ci chaîne ci ay malaaka safan safa borom bi nee na keroog la ñuy indi jahannam rasul sallallahu alayhi wasallam wax leen lu ngeen yàgg wax fii mu ne am na juróom ñaar fukki junniy jàppukaay no jàppukaay ya mel yàlla ko xam jàppukaay bu nekk juróom ñaar fukki junniy malaaka ñoo koy téye mu nekk 4 milliards 900 millions de malaaka ñoom ñooy indi sawara yowmal qiyama yaa ngi dégg wa ji a yowma isin bi jahannam borom bi mu ne keroog la doomu aadama nag di fàttaliku lépp loo xam ne defoon na ko lu baax ak defoon na ko lu bon mi ngi noonu keroog la doomu aadama di nangu ne yàlla rek mooy kenn keroog la doomu aadama di waaru ca dara la ko dul jëriñ bi su keroog su ko defee mu naan ak neexoon ma jiitaloon ñeel sama dunduk tey gi mbokk lii ñu jaar ab étape bu ndawal waaye dund gaa nga alaxira de buñ ne daaral axirata li hiya al xayawaan fii ab étape bu ñu jaar rek leen ñu jàll waaye dund ma nga alaxira mooy loo xam ne du jeex ba faw ak neexoon ma jiitaloon ñeel sama dund gi mi ngi noonu suñu bor borom nag mu ne xam leen ne yàlla ni muy mbugale kenn du ni mbugale loolu tax firaw na ba mu tëbee ci kaw turbine ba bakku daal na yéen jabar yi yéen a may trahir di ànd ak Muusa da ngeen xam waaw danaa leen rey rey boo xam ne da ngeen xam danaa daaj seen loxo yi seen tànk yi ci tàndarma yi mi ngi noonu dagg seen loxo yi ndeyjoor dagg seen tànk càmmoñ bàyyi leen fa ngeen di siit ba dee gaa yi na ko hee firawna li ngay def yépp la yàlla di daje ci mbugal moo gën a metti yaa ngi dégg li ñuy dig ci xéewal la yàlla yor moo moo moo gën a màgg kon yàlla ay mbugalam kenn du nu mbugale xam ngeen ne gaa yi yéeféer yi am nañ ba am expert ci torture ay médecins yoo xam ne dañ leen a formé ñuy torturer doomu aadama ndax man mi xamul su may mbugal nit ki balaa yàgg mu xam mais ñoom am na lu ñuy contrôler sa tension am na lu ñu lay def man laa téye di la mbugal pendant ay heures yi heures yi heures nga koy yëg ci la nga xam ne surtout agent secret yi ut ci yow ay nouvelle waaye ma ko loolu lépp du dara sa borom kenn du mbugal ay mbugalam kenn du chaîne ay chaîne am chaîne goo xam ne nee na sab'una ziraan ci chaîne malaaka non borom boobu subhanahu wa taala nee na li may xaar yéeféer yi am maa nag mu wëlbatiku ca ki nga xam ne bakkanam dafa daloon a nafsul mutmainna jaamu yàlla bokkaale wu ko ak dara mutmainna dal ci ne diggu yàlla yi lépp dëgg la amu ci benn sikk sakka ci loolu borom bi subhanahu wa taala mu ne moom bu ñëwee ñu ne ko dellul ci sa borom nga doon koo xam ni da nga gërëm lañ fa fekk yàlla subhanahu wa taala gërëm la radiya te mooy mbokk aljanna amul lenn lu ñaan su meloon nii lépp xéewal la lépp loo gërëm la booleeg sa borom gërëm la gërëm goo xam ne nii mer dootu ca am moo tax àjjana amul bakkaar suñu borom dane i'malu ma shi'tum lu leen neex def leen lu ngeen def neex na ma mi ngi noonu amul looy xalaat naan ndax lii baax na ak baaxul déedéet loo def rek neex na yàlla mardiya suñu borom it mu ne demal nga dugg ci samay jaam demal nga dugg aljanna loolu it mbokk julit soo bëggee bokk ci ñu ñu àjjana del ànd ak nit ñu baax ñi del dugg ca gaa yu baaxee di toog ak ñoom yàlla nañu yàlla nangul suñu jotaay bi bàyyi suñu soxla yépp dem ci néegub yàlla ba toog ak jaami yàlla yu yor téere bi yàlla di ko jàng loolee mbokk mandarga la ci yoonu aljanna loolit ba képp koo xamee ne nii dem nga di ànd ak ñooñu sawara ci kaw suuf loolee da ngay gis suñu yonente alayhi salatu wasallam dane al mar'u ma'a man ahabba képp koo xam ne bëgg nga ko di toog ak ñoom xamal ne ñoom ngay àndal ñëw na ci hadis boo xam ne nii ci ngëneelu fadlu al xilqu zikr suñu borom bu waxee ci hadis bu bu bu bi muy wax ci ne jéggal naa leen tabbal naa leen danaa leen tabbal àjjana danaa leen musal ci sawara malaayka yi ne ko mais ay ay suñu borom diw nag day jataayu diine bi indiwu ko woon dafa am leneen lu mu doon dox waaye daa ñëw mu ñëw mu toog ak ñoom suñu borom mu ne boole leen ko ci sama jaam yi baax yooyu képp koy toog ak ñoom du du texee ji loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax yal nañu yàlla boole ci jaamam yu baax yal nañu yàlla teral adduna teral ñu alaxira yal nañu yàlla musal ci mbugalam adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain mu ne ndax góor dana am droit di fuddan loxoom la mbokk fuddan ñi nga xam ci jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na benn jigéen muy ñëw ci néeg yaay Aïcha tàllal loxo bi ni yonent bi alayhi salaam ne waaw kii moom loxob góor la am loxob jigéen lu teewoon mu fuddanu loolee kon góor du fuddanu lu dul ñu yëg ne fuddan ba dafa am lum lay fajal waaye bu dee ne pour toilette nañu xam ne góor nekkul koo xam ne ni dafay nekk di fuddanu comme ni jigéen ñi di fuddanoo wallahu subhanahu wa taala alam waaw mbokk naa ilaaj yi ñëwoon ci internet bi kii mu ne naka la ñuy tuddee doom mbokk tudd doom moom mooy nga ñaanal ko rek ñaanal ko loolu la ñu xamoon ci sunna sahaba yi buñ masaan am doom injil ko yonente bi alayhi salaam mu ñaanal ko am na yenn hadis yu ca rot ci xale bi ñuy nodd ci nopp ndey jooram ak di li xam ci nopp càmmooñam loolee du fañ koy tuddee ci bisu juróom ñaareel ba loolee fa mu juddoo la ca loolu it mooy da ngay d'accord ca ñu wéral hadis yi doonte ne am na ñoo xam ne wéraluñ ci hadis yooyu benn am na ñoo xam ne nodd ga la ñu wéral am na ñoo xam ne wéraluñ ca benn sax classe Cheikh Nasruddin Albani gi waaye ala kulli xaal daal nañu xam ne bisu juróom ñaareel bi xale bi dañ naan tudd nañ ko diw képp koo xam ne dañ ko koy joxe dañ koy jox pour mu ñaanal ko waaye loo xam ne spécial la loo xam ne dañ naan nii la ñuy tudde doom loolu amul loolee ñu bàyyi ci ñu bàyyi ci xel bu baax lu mel noonu la ñuy wax ca feral ga nu ñuy feral a doom amul ci lislaam soo demoon nag suñu àll bi xam naa man mii sax loolu lañ ma defal mooy suñu caamin yi boo boo demee comme imam yi da bu lu nekk dañ ci am occasion pour am dépense soo ñëwee dañuy indi mburu mburu mu ñu bind ci wa harramna alayhi almaradia min qablu mooy la yàlla waxoon ne yonent yàlla Moussa dafa araamal ci moom nampalkat yi ñu ne aay ba boo ko bindee ci mburu mi su ko defee bu ñu fexee ba xale bi lekk ci dootul bëgg bëgg weenu yaayam loolu wérul li wér daal mbokk feral amul nuñ koy defe ci lislaam bisu àjjuma bañ koy taamu amul ci lislaam feral daal mooy xale bi del wàññi namp bi nank nank nank ba mën koo bàyyi jeex na wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam ala kulli xaal ki nga xam ne dafa war a génne fidiya ca amul fidiya suñu borom la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha yàlla tegul bakkan lu du la mën yàlla tegoon na la nga woor munoo woor nga war a génne fidiya amoo teggeeku na la teggeeku na la bis boo ko amee nga nga jox ko boo ko amul teggeeku na la mi nga noonu kon loolu moom bu mu ko bu mu ko déranger amma yàpp gileem ixtilaaf dafa am ci borom xam-xam yi am na ay hadis yoo xam ne ñaka wéral wéral nañ ko yonente bi alislam dañ ko laaj ndax ki lekk yàpp xënam muy xar yeeg bëy dana jàppaat mu ne bu la neexee ñu ne ko waaw yàpp gileem nag mu ne na am da ngay da ngay jàppaat doonte ne loolu da ngay gis ne bu ñu xoolee la ci gën a not njàpp ma day nekk lu ñu sopp mais pas lu ñu farataal kon du ne yàpp bi dafa tot njàpp mi waaye daal ki lekk yàpp gileem ba pare sopp nañ mu dem jàppaat waaye nekkul du toj njàpp mi ba nga xam ne farata la mu jàppaat wallahu subhanahu wa taala alam naam ah naam ah waaw waaw mu ne ndax yàpp gileem daa sell ah yonent bi da daan lekk yàpp gileem dégg loolu loolu loolu moom du question ñàkk sell bi problème bi kay mooy ixtilaaf bi mooy ndax ku ko lekk da ngay jàppi wala doo jàppaat la la ci gën a diggu doomu mooy loolu mi ngi noonu naam bismillah nit ki góor mbokk lépp loo xam ne jigéen ñi ñoo ko yeyoo di ko def góor du def loolu yonent bi alayhi salaam dafay nee na yàlla rëbb na bépp góor buy nuru nuru lu jigéen ak bépp jigéen buy nuru nuru lu góor léegi nga defee xale bu góor ci mbedd bi mu afra boppam def ko ab kii bopp bi comme boppu jigéen loolee mbokk déedéet góor du nuru nuru lu jigéen afra yooyu jigéen ci jigéen lañ ko xamee góor du nuru nuru lu jigéen jigéen du nuru nuru lu góor wallahu subhanahu wa taala alam naam kon mbokk ñu doy loolu kon subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk